ملكت ما كان لي بغير مبتغيا ما علم لي يا بحاجتي لنا di nuyu étudiants yi ñi fi nekkoon waaye di nuyu gan ñi di leen wax dal leen jàmm comme ni ko ñëpp defee euh, ñu ngi leen di séddale ay formulaire muy formulaire yoo xam ni mooy formulaire d'orientation yi maanaam fi ngay mën a tànne filière de formation bi nga choisir pour ko def mais tànn gi boo xoolee formulaire bi dafa am dafa am fu ñu def centre ci tableau bi tableau bi dafa am centre ñu ngi gis ni kon Touba mooy feeñ Dakar Bombay ak Saint-Louis mooy ñeenti sites UCAD yi nga xam ne actuellement ñu ngi jàngale bu ngeen xoolee bu ci mooy filières yi am sëñ ko léegi di ñaari licence yi nga xam ne am na ci biir université Cheikh yu bari am na fi ñu utilisé ba noppi waaye juróom-ñaar yi nga xam ne actuellement ñu ngi koy ñu mu nekk nii ku ko nga door njàng mi bu ngeen xoolee Touba am na waxoon na ko mooy al-ulum diiniya wala science religieuse ak bu ñuy histoire et civilisation ak taarix wal xadaara ñaar yooyu Touba la kon ñaar yooyu ku leen tànn ñaar yooyu benn waaye ku leen tànn kon mooy tànn nga jàngi Touba beneen centre bi ci tege mooy Dakar am na filière bu tudd informatique de gestion am na filière bu tudd électromécanique am filière bu tudd administration maalumaat yi tasir électromécanique ak al idaara donc mooy ñetti filières yi nga xam ñoom ñu ngi nekk ci diwaanu Ndakaaru ci sans face mbaaw kon ku leen tànn buñ lay orienté jàppal ni kon fu yow Dakar nga war a jàngi ñu toxtal ci beneen centre bi muy Bambey moom benn filière rek la am muy développement rural dañoo bind ci suuf agriculture élevage pour bu xamal lan développement rural mooy ñaari domaines yi nga xam ne moo ne ci biir tanmiya rifiya ñu def benn xaw say ni azdiraa wara kon yooyu kotaan fii nga ne um ngeen di jàngi muy Bambey bu desee nag Saint-Louis moo ci des Saint-Louis diwaanu Ndar mu fa la ñuy defee technologie agroalimentaire muy technologie azraa al-ghazalia léegi ni tànn bi demee mooy bu ngeen xoolee ci suufu fooy bi dañoo bind l'étudiant doit obligatoirement choisir une filière dans chaque centre maanaam ñeenti diwaan yi ma wax ñeenti centre yi ICAB yooyu Touba benn rek nga ma tànn Bambey benn Dakar benn Saint-Louis benn booy xool loolu ko moo lay jox ñeenti choix un koy xool nag bi la gën nga def ko mu nekk un deux trois ba quatre yi mat noonu lay dem bu ko defee bu ñuy orienté ci formulaire bii nga def dañuy sukkandiku bu amee lu gënal président gënal waa université yëpp mooy kenn ku ne fa nga def sa premier choix kon xëy mooy fa la gënal bu fekkee ni ya yaatu na yaatu waaye man leen a dalal ñu xam ñu ko demandé ñu fañ lay yóbbu waaye nag bu fekkee ni capacité d'accueil bi tey ñu ko laaj xajuñu fa tey ci misaal danañ la xëy am ñu yóbbu seen deuxième choix wala ñu yóbbu leen seen troisième choix noonu lay dem day nekk di tartib waaw day nekk di tartib nga tànn bi la gënal al awwal saani saalis ba rabia waaye mënuloo def deux choix ñaari choix ci ci ci benn centre waaye loolu bu ngeen xoolee ci kaw en tête feuille formulaire bi étudiant bu nekk dafa war a remplir euh, prénom teg ci nom prénom ak nom su paree mu remplir numéro INE mooy identité numérique de l' étudiant mooy numéro bi ñu leen joxoon bi ngeen inscrire campus seen mu commencé à jeexee deux bu dee jigéen un bu dee bu fekkee ni am na ci ñoo xam ne yenn saa yi dañuy xaw a sant ndaw mën nañoo bañ ta jàpp seen numéro INN bi ndax xëy na seen compte bi ñu inscrit campus seen amuñu mot de passe wala ni da leen ko defal rek mën nañ numéro bi mën nañ ko ñàkk mais su boobaa xanaa lu mu bon ba loolu nga yor sa carte d'identité numéro carte d'identité bi mën na remplacer ko kenn fàtte parce que mooy tax ñu mën a xàmmee bu fekkoon ne tey ñaari étudiants dañoo bokk tur ñu mën a xàmmee kii mooy kii kii mooy kii loolu la ci jublu xam naa damay wàccee sama kàddu ñu. delloo kàddu gi sëriñ bi mu defal ñu ay ñaan ñu yewwi ganam yi bu ko defee nag léegi ngeen ngeen continuer jël leen seen temps ngeen remplir formulaire ba mu yegg su ngeen paree naa ngi toog fii ñu ngeen joxe ko incha allah. beneen bi ma fàttali mooy euh, ngeen gën di bàyyi xel seen seen seen seen email yi parce que fii ngeen toll nii pour di communiquer ak yéen li gën efficace mooy di yónnee ay mail. wala ñu def par voie d'affichage mooy fi ngay bu ñu la soxlaa yëgal dara taf ko foofa nga ñoom waaye nag bu dee loo xam ne dafa la yittale étudiant bi dañ la ko yónnee sa adresse mail jërë ngeen jëf doo leen bàyyi xel adresse mail bu ci am adresse mail boo xam duxutul da ngay ñëw bureau scolarité bu ko defee ñu daal koy actualiser defal la bu bu bees wala daal nga en tout cas daal naa nekk boo xam day kon ñu wàcc suñu kàddu. aywa beneen bi ci des nekk ki nga xam ni ñu ko sëñ Talla Cissé waxee dafa indi woon dafa ñu invité woon ci amphi de rentrée bi ñu organisé woon Touba mercredi passé di woon le 29 mu ñëw moom moo yore lu jëm ci wàllu bourse établissement privé yi yàlla def muy ku jàppandi ku disponible ñëw Touba indi ay leeral yu am am solo leeral itam conditions yi ñuy joxee bourse yi kon fii dañuy jéem a euh, baam rek li nga xam ne wax na ko. muy bourse yi am dafa am lu ñuy wax bourse d'excellence boobu am na boobu moom état mi ngi ko jagleel ñi am moyenne quatorze jëm kaw mooy ñi am mention bien wala très bien quatorze quinze seize jëm kaw am bourse bu ñuy wax bourse entière mooy bourse bi nga xam ne en général montant bi quarante mille francs lay doon mensuel boobu ni ñu ko jagleel mooy ñi nga xam ni seen moyenne ci bac bi mu ngi tàmbalee douze jëm treize quatre-vingt-dix-neuf mooy ñi nga xam ni ak ëppoon nañ douze te àgguñu quatorze am na ñoo xam ne dañ leen di jox genn wàllu bourse lu ñuy wax demi bourse demi bourse moom dayoon mi ngi toll ci ñeenti junni mille francs loolu ab commission mooy toog rëdd bac bu ci nekk série bi ci à partir ban moyen la ñuy jox étudiant bi muy njàngaan bi Euh, bourse boobu demi bourse boobu mais bu dee yéen ci bi ngeen nekk seen série muy littérature et civilisation arabe bac boobu ñu ko am bac L la fi gën a euh, boobu pour nga am bourse demi bourse mooy bi gën a ndaw faaw nga am dix quatre-vingt-dix dix quatre-vingt-dix waaye waxuñu nag nga jaar am ko deuxième tour premier tour toujours d'office laay wax même bu dee da nga jàll deuxième tour nag bu dee onze nga am ak tour moom ñooñu du ñu am demi bourse mais nag état leen di jagleel lu ñu tuddee aide aide sociale aide benn montant la boo xam fay benn yoon lañ koy fay ci at mi muy cent mille francs lay demee en général léegi tam boo duggee ci ICAP yaa ngi tàmbali xëy na amuloo bourse bu déwénee da ngay def le renouvellement dañuy yeesalaat bourse bu ñuy yeesal bourse bi dañuy bàyyi résultat yi daaw ya léegi nag ci résultat yi nga def e ci sa année préparatoire ak yi nga def sa l la ñuy sukkandiku di yeesal yeesal bourse yi loolu mooy renouvellement waaw ñu nag ñoom ñu fi ne rek ci seen relevé bac la ñuy sukkandiku donc ñoom am nañu information yëpp kenn ku ne série bi nga nekk ak moyen bi nga am mën nañu xam dana am wàllu yenn saa yi itam mu am ci ñoo xam ne dañuy ñëw di jàng mais dañuy aaree dañuy ëppal fa dañuy matal fanweeri at moom ñu ko am même boo amee mention période bien bac boo amee fanweeri at du doon bourse fanweeri at dafa âgé waaw donc ñi am bourse mooy ñi nga xam ni seeni at dafa yées fanweeri at kon loolu mooy li nga xam ni monsieur Soumaré ñëwoon na Touba leeral ko dénkuñu ko tamit pare def nañ séance de travail moom liggéey mu expliqué yëpp en détail ba lépp leer euh, kon li ci am solo yëpp daal mu ngi noonu kon damay wàcc sama kàddu jëbale ko Baye Malick jërë ngeen jëf Bébé